yow déggu li ma la bëgg expliqué man nee naa la li ma la wax ca stockage yu gars yi ci nekk fële à la banlieue bu explosé tu perds tous les quartiers qui sont là-bas muy benn maa ko assumé man maa leen ni immeuble yi nekk fii ci Dakar bus bu bomboon explosé ci biir immeuble yi ci boppam dañuy sauté yow xam nga bu dee gaz buy explosé nu muy def. mais est-ce que faut bi kon par exemple duñ ko duñ ko impliquer nga xamante ni ñooy des autorités étatiques qui doivent réguler cela. yéen xam ngeen ce qui est évident pour yow ça l'est pas pour l'autre te bu leen yaakaar ne autorités yi nekk ci état bi lépp lan xam man maa leen ne am ministre de l'énergie yu nekk fii tey soo leen posé question ne est-ce que mën nga maa wax benn immeuble boo xam ne bii installation circuit de gaz par le système de compteur ñu si bari xamuñu ne am na am na ñoo xam ni xamuñu ne gaz mën nañ ko distribuer par des compteurs ñu ko xam mooy ñi ma dem ay Europe yooyu nekk ci ay immeubles yoo xam bu des fii ngi def ubbi di taal di nous avons fait l'Europe ñëpp ñuy voyager commencé dugg ci ci en Europe xam nga ni le système de gaz est distribué à partir de compteurs c'est pas des bouteilles yu yanu nii di ko ci ay escalier ñoom am na ñoo xam ne xamuñu des am na xam sécurité dégg sécurité il mel a ma lay ay code de l'environnement ay protection établissement classé yi ak affaire devons du nu def seen liggéey ba la ñoo bouger catastrophe mais nous na ay ñoom ay gars yu jàng lañ de ca dem nañ le gaz est un produit qui xam conservé da avec sécurité c'est comme l'essence Nous lu ñuy foyee ñoo la gën a c'est des immeubles qui xam en règle

ma ñëw dugg fa ne gouvernement lii lan la mun ma ñii fi ñu di fi tabax de à 500 mètres de la piste de l'aéroport la sécurité dit que kenn waru fi construire c'est pourquoi nous sommes venus pour détruire xam nga lu ma wax gouverneur dama ne ko monsieur le gouverneur yow yaa ngi monsieur le préfet la ma ne ko yaa ngi taxaw fii talibaa ngi nii de ci seen kanam lay jaar yaakaar nga ni waa urbanisme ak les corps de contrôle de de l'État bañ su commencé di def fondation bu muy jóg nga yaakaar ni seen bët teguwul ci fi teguwul ci lii xamuñu woon ni ñii fi ñuy tabax waruñu fee tabax ñoo ko gën a tey léegi jël leen habitude bu ngeen gisee nit kuy def fondation te waru ko faa def ngeen dina ko bougeel avant que muy toog ba def ko ab immeuble ngeen ñëw di ko toj li ci xew nag Sénégal mooy lenn da ñëw gis waa mu dox la dara nga dem bo legge nga ñëwaat contrôler di lek ci mom ba kañ la bâtiment bi taxaw ci buñ koy toj yaay and ci ñu ñëw diko toj muy ben leneen li def gis nga fi ay expert fi ay technicien yu jàng yu xam en matière de sécurité li may wax ni, dañ ko xam comme man mais gis nga mbir boko gisé ci do dem fajj ko parce que am luñ lay jox ngay def sa poste motax ngay nopi mais bis boo ko dindi dañ ko dindi